Alxuraan bi Mbàkke la Mbàkke vidéo bi Mbàkke la Mbàkke bu baax a baax a baax encore une fois gën a leeral te gën a gën a gën a gën a leeral quoi bi tawal amiin amiin avancé ba ne Thank you. actuellement à Kër Massar actuellement Kër Massar le 29 le 29 boo leen bàyyiwut Sonko rek dëkk bi du am jàmm Kër Massar actuellement. waaw tey 29 juillet ñu ngi fii ci Niassane jumaa Niassane. ñu ngi nii côté bi ak côté Venezia bi aussi